jërë ngeen jëf euh, mbokki internet yi dalati leen nag euh, jàmm yéen ñu ñuy topp su sunu seen bi di live Dakar 221 mal nekk si nag eh, mbiram ki nga xam ne moom moo di centre bu mag bi di wuy su turub di Diop ginnaaw rek bam fi amee jafe-jafe ku yoon nag si rek fan yële ñu génn moom kooku di Sidi Diop doon dawal ab oto naka rek brigade bu an doon def rek li nga xamante ne si moo day contrôle ba taseek moom vérifié na rek daatiwul amub permis pour permis de conduire li nga xamante ne si moo di woto ba mu yoroo amul assurance loole rek taxoon ñu daat koy teg loxo moom kooku di Sidi Diop ba tax rek ñu daat ko defoon en garde à vue nag si noone rek mu war a nag jàmmaroog li nga xamante ne si ne moo di yoon tey ji moom kooku di Sidi Diop ñeel ay mbiram ba xam rek naka fan lay mujjee si ay question yi xamante ne si ne danañ ko dëgmal jëme si moom moom kooku di Sidi Diop ginnaaw bi nga xamante ne si ne def na yooyu la erreur yorub oto te yorul woon la nga xamante ne si na moo di euh, permis de contre bu ko mën a permettre mu daal di dawal ak li nga xamante ne si moo di assurance loolee taxawoon ñu tegoon ko loxo ba tax mu am say jafe-jafe ki yoon naka si tey ji nag danañ xam euh, mbiram euh, fan lay daal di mujjee moom kooku di Sidi Diop nekk centre bu mag fii si réewum Sénégal ñu ràññee ko fi xàmmee ko lool moom nag am mbiram yaakaar naa jamono ji nag tey yaakaar naa dana si am lu leer ba xam rek das koy daal di bàyyi mu ñibbi wala nag ba tey dafay daal des moom kooku di Sidi Diop. kon nag ak lu si mën a daal leen toppal am mbiram moom kooku di Sidi Diop ba xam rek fan lay daati mujjee ak yoon naka si uh, tey jii bi nga xamante ne si na war na ska uh, diglu ñeel sa mbir moomee xamante ne si na uh, daati na ko doon def moom kooku di Sidi Diop si oto bi nga xam ne yoroon na ko doon ko dawa te yorul ay pêche.